fii dama xëy sóor baax na doole baax na torop fi nga génn gën a baax man ah, na may relax man complicité bii daf ma ne li dama ko namoon quoi ci la bokk mais à part ça mère maa koy jéem a woo démb mais mënuma ko jot déggante ngeen si si ñu ngi doon waxtaan si WhatsApp bi mais mu ngi si jàmm de xam naa moom jënd bagage yi moo tax mu xaw a yeex cette fois ci nii ah d'accord d'accord d'accord des fois moom day yeex d'accord loolu moo tax kay ah d' accord c' xam naa li ma la doon wax nag bëgg naa ñu waxtaan ci mais comme euh, dama yàkkamti bëgg am lu ma doxi ci mhm. euh, xam naa dañuy bàyyi ba après su ma ñëwaatee ñu jéem a xool nan la ñuy def pour waxtaan ci. d' <laughs> ah, eh. jëlee sama oh, verre nii def ko. sa doom lay def la waaw gis nga mais dafa mel ni da ngeen ko exéco. waaw moo ma ah. jaaxal de dama bëgg ñëw dem comme maa ngi woon ci yoon. baal ma ñëw daw xam naa du ñàkk après toppatoo ko bu baax a baax a baax. je pense que naa la fekkaat. waaw si si. ok après si dama ko moom. allez merci beaucoup. tout jànq. eh wuyu ma yow kii foo jaaral na. man rek di def fa nooyi nepp nepp fii la ñëw dinaa ma sa digganteeg aali dinaa si jàpp dinaa wax ak maire bi. man ni waa eh sama xarit du nit man ngay waxal de. surtout nii sama xel mi dem na day woote 24 heures sur 24 bi ki topp lu may lekk lu may def lu sol maanaam daal lépp impact sama dal boo buggee dégg-dégg fi mu toll ñoo ngi joué ci terrain bi lu amul fen mais bi mu koy bi koy doxaan di ko dragué noonu moom résisté wul benn yoon. xam nga nag man damaa bëri ay façon. xanaa ku la premier bi dama nekk ko doon ñëw am kumbala ma mu ne ma yow laa bëgg. ma ne ko lii mooy doon dem Màkka. daje Kaaba gi mu taxaw sawet wet. man nangu ko nangu bu am jom hésité wu ma ko defee muy changé avis. waaw ba ma yeggee xaaruma message de. tukki bee ko jàpp xel mi toogut. ba ma yeggee dama ko nekk kooku Sekiya. jël sama temps boo bëggee dégg dëgg fan yi moom non dama am marqué sama empreinte daal xale. man maa la woon. Hmm. laa def gëm. waaye yow à sax yow jànk man bëgg naa ñu waxtaan tamit. Hmm, xam nga fi mu nii moom nangu na aale d'accord na te xam naa ne nag li may liggéey su ma ci parewut moom mooy kii fexe sa yaay nangu si diggante ak aale mën na mën na sax am nag guerre bi mook sa yaay lay mujjee. bu ma toggee lu ma togg ba pare waaye jàng ma laaj la jàng yow aale eh, ba mu neex loolu laa bëgg di waaye jàng léegi yow ay dépense ay oto fii ay fon génération yu bees yi waa léegi nan ngay def yow tamit nag jàng yow yooyu yéen na man loolu si laa juddu dérange ma affaire yi du juddu de na mbëggeel bi rek sincère xam nga nag ma tam xarit nga bu fi ñëwee bi passé nee naa la pour euh, ma may la sama benn góor ku ñuy wax Moussa ba xam nga ni barki démb 200000 la wàññi teg ko sama loxo. 200000. pour yow. xëy. yaa ngi nangu wala yaa ngi lam-laame ba tey. bàyyi ma di ma yow da nga maa xamee yooyu tamit vraiment. te kooku 200000 ndékkikaay rek la ko def xam nga nag sama doom nday nga te li may lekk bëgg naa nga lekk bëgg naa nga am ci cheveux yu baax yi am nga ci sax waay yu gën bëgg na nga dawal ci auto yi eh jom la sa yaa defa liggéey ah ta sama xarit nga duma la forcer nag duma la ñaar sa loxo yow daal jëlee sa temps boo nangoo ma woo Moussa ñu kale toog waxtaan ndax sama xarit nga. kii yaa man xam nga ni moom yooyu moom mun dama ko ragal man. fii boo ragalee doo dem de dëkk bi li fi nekk fit la amu benn temps kon na ngaa ragal yow kon yëndu kan la man man aw ma taadi. ah doo ko foofu yow xam sa yaa ko desee.

bu fekkee man rek mom na sa xel dal ta xamni ni mu sa comprendre dara. est ce que xam nga ben affaire. Hmm. fi mu tok ni dama bëgg ni dund lu exceptionnel lo xamni du sax comprendre est ce que xam nga bu jëlee du ma arrangé. man maa la gën bañ mo mu jëli tax ku yoddu sa xat ta man limay def man na koy def. du dëgg loolu loolu loolu bu dee loolu na sa xol sedd boo la nelawal. ah ci kon dañ ko defee fu mak mais faaw ñu gisante tay Mm, xam nga man yaa taxoon ma ñëw ci kër mais ñëw tax yi nga tax ma ñëw sa ci kër gi tamit sarax rax lan moo tax mënul bàyyi aal surtout loolu yaa ma ci mën a man musuma gis lu mel nii bi ci topp pour moom moo regeen yow nag fi mu toll nii yow yaa mën a jouer le jeu comme si que da ngaa bëgg aale ndax man war naa koo may sama benn copain boo xamante ne dafa yor xaalis te bëgg na ko te mën na koo teral moom nag mi ngi sikki saaka di nii mais moom rek ba fu ñu mujjee man man xam nga ni du du ma yóotu dara te du ma ko jox. exactement voilà noonu la demee. yow nag yaa ci war a dox fi toll nii. actuellement yow rek yaay seule personne bi nga xamante ni bii nii war nga mën a faxe ba ñu tàqale ko ak Ali xam nga man maa ngi joué avec les jeux. pour wan ko ni ko bëgg naa Ali alors que contraire bi la léegi nag li ci des mooy nañu jéem a def le tout. ba loolu ngay wax nga defal ma ko juste rek moom mu bañ am relation ak Aali Aali boo xamante ni bii dina mën a jëm ca kanam. non bu loolu yow yaa ma ci jàppale. yow defal ni rek comme da bëgg Aali. man dinaa jël sama benn góor bu baax. bu am njëriñ am teraanga Moussa mën koo defal jigéen maa ngi ko koy proposé pour may ko ñaa ñu nekk dund su jàmm moom nag mi ngi si sigi sàkk mais man su ma duutee may am loolu fa la force la. wóoru naa la gëm naa la parce que que xam naa ni fi mu mom li ci kanam ya koy doxal. noonu la demee mais nak il faut ñu waxtaan. Mm. waxtaan bi dafa am lu bari lu ma bëgg ñu waxtaan. bo fàttali ko maa ngi la doon proposer que ni sa affaire salon bi mm-hmm. je pense que jotoon nga am local. waay sa bi nak maa ngi wut local ba problème location bi rek xam nga avance dafa xaw a metti mm-hmm. ci la nekk dal di ki ak yooyu. lolu mom du doon ben problème.

ah man xam naa loolu. moo tax loo bëgg nag suba ba ngoon ci loolu laay dox. Euh, ay waay taamu nga xale bu yàlla baaxal taamu nga xale boo xam ne dalaa bëgg a yemalewul ak lenn li bu fii moon sax day neex man bu ma ko ubbilu salon bi sax bu ma ko doon naxee sax garaawul. est-ce que xam nga benn affaire. Hmm. man bu ma taxawee ak yow di waxtaan ak yow janoo ak yow. dama lay sentir xam nga nu muy mel. Ah. dafay mel ni baaru galaas. bu ñu hmm. tàbbal ci njarum soow. loolu gis sama ñoom maam loolu mbëggeel la man looloo may daal. loolooy mbëggeel ñamal du la ko tax a yàbbi ndax dafa neex est-ce que dem sax doxantu. kàgg ngeen ma sa xarit boobu dañu woon na fi. duma xarit ban ci mooy ki fi dikkoon bërki démb di xaabaar xaabaar dugg ci biir boobu baram la say bari. Ah, kii euh, mentor. xam nga mentor xam mentor la mentor nag. kër gi dama ko interdit bëggatuma mu dugg ci biir kër gi ndax kër ba mu duggee ci biir kër gi di la menacer lu ne mu di la ko wax nga ne bat toog di ko xool xam nga bëgg góor day am fulla góor day am fayda góor day am fit ju ko ci kaso nag bu mu tax nga ñàkk fayda bolu waaye yëkkati rek xëpp la ko ndax mentor boo amee fitu ñëw ci kër gii yaa ñu ne déete waaye nag mu lay seet waaye dégg na dama ko ci sama ëtt bee mentor mel mentor mel mooy borom rasta bari yi mentor encore lui ko ah xaw ma encore lui xaw ma encore toi mentor daal la ok léegi après lan la wax Kiné nee na daal dafa nopp Kiné ba Kiné yëkkat numéro téléphone am jox ko ko kiné lan lay doy ko. parce que man kiné wax na ma kiné nee na ma daje na ak moom man aussi jël naa ci samay responsabilité li ma war a def parce que mentor dafa ma bëgg a yàpp hmm. te xamul boppam. li tax sax man man man kiné naw naa ko foofu parce que bi mu ko waxee rek dafa ñëw wax ma ko kon xam nga ni kiné elle a une très bonne éducation parce que bu doon yeneen xale yi dina ne patt ak moom doo xam lan la.

la ngay dàq xëy mu dem ci àll ba danga koy dàq mu dugg ci biir kër gi ku am mbokk yu baax lu wut ci mbokki jàmbur ba cee xeex ki ne mii laa la bëgg a may nga takk ko mu ne ci biir kër gi maay ndeyam maay sa ndey da ngay dàq xiw ne mu dem ci biti dàq mu dugg ci biir kër gi hmm, tata mbëggeel de mooy nekk loo xamante ni bi bu lay dugg du la tàggu kon yow bëggeel ko duggal la. waaw mais xam na dina la dugg. xam nga dina la duggal fo xamni tay ji ni ak lu la fa mënti dal ak lu la fa mënta wax c'est parce que juste c'est la puissance de l'amour lolu motax mais nekul ke ni da nga ñak fayda wala da nga ñak ay mbokk ay leneen euh, mais nak pour le cas de Kiné Tata Kiné mom sama rak la sama jarbat la hmm. man maa koy maye dina ko dul ku bax may ko ko loolu moom bàyyi mhm. ah, ko sama loxo rek man dina ko géré ma ne jar baat. jër bi baat. wa mais lolu olof di wax mais aussi est-ce que c'est avéré quand même lolu ah nit de kenn du ko forcer ci lu mënout mënut de jëlal ma kinné mi di sama dom ngay sama dom ngeen and ma ba ndax nak ak mbokk dang koy laax bokku ci mu tass mbokk mom dang koy laax bokku ci mu tass la ci mbokk famille baa ngi fii de te ki ni muy wax dëgg yàlla gis nga ko bu baax yow. ki ni xale la. donc man te civilisé na te loolu ci jigéen ñi. ki ni xale la. Euh, juste que am na am na ay corpulence am ay forme te gars yi moom boo xasee mel noonu rek ci jamono bi di gis façon góor bu nekk. mais nag loolu moo war a nekk moment bi dafa toll ci ñu yar ko éduquer ko xamal ko ay valeur def ci moom lu nekk léegi nag xamuluy problème bi jabar boo koy takk danga koy takk te ba muy tuuti yaa ko mën a yar sa bopp ndax koo boo koy lekk da nga koy lekk ca ba mu dajagulee waaye boo jëlee koo ne bàyyi ba mu daj nga ay paaka ak ay peel lu ne nga di ko dindee yow mi ko nara yow yar yar jël ko nga yar ko na yow tamit nag tata bàyyil noonu rek bàyyil mu bàyyil mu sedd ah. après après dinañ ci wax. waaw man daal baax na ko loolu baax na. Ah, naa si bàyyi xel. waaye ah, mbokk yu baax te lay ci mbokk jàmb ba cee xeex. dégg naa la. xëy na koy ko yara sa bopp mu tàmmal la boppam miin la. dëgg naa la bëgg la dégg naa la. miin ko sa bopp sa yaram waaye ba bàyyi ba mu dëj ah xale day yàpp bar mala luñ duuf duuf la tax. tata yow daal moom yaa nama apa wax dëgg di boo naree takk doomi jàmbur te nga sama doom ji mu ne ci biir kër gi ngeen bokk lekk gi bokk Nih gi bokk lépp kër gi gën a ya? neex léegi dangaa nar a takk doomi jàmbur ñu muur ko bu sëy si ñu naan seetoo seen ngërëram te fii la ah réfléchir bu baax nag d'accord li ma la wax dëgg laa la wax de la ah defal gën man dama nit am su ma xasee joxe sama cadre joxe naa ko fenn loolu dafa bokk samay défaut xaw ma ay défaut la ay qualité kon dama la ko dencal bon xamal naa leen de sa ndaw say fi ne ni moom sa bopp bi say xare la de say xare la de da ngay doxaan ak na nga say du doon benn de baax na ñetti weer ñetti at juróom benn weer juróom benn at ñetti fan dema dinañ ci wax waa ma nga noonu daal indi kenn mu leen jëlee décision ok xaaral dinaa dinañ ci waxtaan après incha may may kii rek benn problème lu rek li tëjoo tata problème rabbi allez man man bu dem takki jàmbur ñu dikk jaxas seen kër ndey ak seen kër bàyyi kii da ko ko ki ñëpp bandi sikkimam bu weex mu ne mu mel ne ko doon naan soow nii man léegi lan moo xew sama doom moo ne ci biir kër gi yooyu tëj la prison nga génn sama doom di la toppatoo mu am ci yaakaar kii daal la tax sama yaakaar sama xol ba la bëgg a def mu mel ni xoolitu gerte rek mënu ko ëpp baax na jërëjëf. waa petite sœur ah rakk di maa ngi lay laaj Ali sax maa ko kii ne ne ko dama ko bëgg a um, jox ñaari prix coupe carré sa garde-robe mais yow daal doo ma seese. yow de man maa la wax dama pauvre wala dama rafle ay yére ba ma naan ay ay perruque ay xaw ma coupe car xaw ma ay garde robe ah. mais yow yow lan la lu gis nga su ma wàccee sama bopp bay wax ak yow di kaf ak yow Ali moo tax ma considéré comme sama rakk mais yaa ngi bëgg a ëppal lan la la laa def ba ngay waxee ak man ni defoo ma dara c'est juste que yow yaa ma neexul xaw ma Ali da nga koo jox mu lekk xaw ma da koo jox mu naan waaye nala la leer ni Ali yow kër ga yow doo fa daagu est xam nga loolu waaw kay. xam nga lan laa ngeen xam yow ak say ngeen noppalu sama diggante Ali Ali fi ma ko téye di ko tag tagal yow mënoo koo téye dindi sa morom mënu ko dindi da ngeen di sonn rek. de ma côté est de chien? ngén noppal lool la sét xolal 3 trois jours à la may de nga la man xolal ma taxaw fi sax di wax ak trois jours. Allô? ça va

donc du coup amna ay éléments de preuve yo xamné ne su ko apporté sama sama sama sama avocat Inshallah, bu ci jappé dinañ am gain de cause non man il faut me laver sama honneur quand même non du ma duma du ma du ma du ma la né du ma rek du ma wa mais euh, yàlla yalla baxna ok après après après ñu déggante wala ngoon on se voit inshallah ok d'accord merci. kiné ça va foo demoon da nga bougé woon un doo tàggoo sax da ngay jékki-jékki rek léegi di génn kiné hmm? lan là? non dara kiné dafa temps dama à faire. Des fois, mais ni dans ma mère ou la dara wala le dans changer sa attitude à mon égard lan là? Mère ou malade? de Ni dans sa famille là, ben, on va ak moom ma taseeg moom si mbedd mu may minimiser nan ma ay keroog wax naa Alika jëndal naa la ay perruque ay yére dama bëgg a changer sa garde-robe xaw ma man maa ne dama pauvre ba mu nekk fii dama minimiser si mbedd bi. waaw mais Kiné loolu loolu lan moo ci nekk mais loolu dara nekku ci c'est juste que da koy def par sympathie aussi xam na ni tu es ma sœur tu ma cousine donc au moins da peut-être que ni li da koy def par rapport ak man. Hmm? man ma kon yow sœur nga ma jàppee wala cousine man jappé wu ma la frère de. waaw mais ki ni su ma jappé jàppewul loolu lan laa lay jàppee. non kon yow depuis tout ce temps kon comprendre. mais attends dis-moi calme-toi d'abord calme-toi euh, explique-moi lan la lu xew ah. ki ne. Allez, sama bët yi su ma la nee jàkk nga xam ne bëtu mbëggeel attends euh, kiné lan la da drame wala lan mo xew da jouer film wala lan un xew. dama est-ce que dama la ko là ça se voit que tu es dans ton sérieux. bien sûr. Kiné Tu da nga tu ak sa yaay. Hmm? da nga un ak sa gis nga naa la xamal benn affaire gis nga man mag mu dem ba dikk laa dama màgget je suis devenu vieux ba ma xoolee sax xam ni je suis plus vieux que toi je peux avoir le double ou même le triple de ton âge moment bi jàng nga war a def xool sa avenir am ay perspectives mais bu kenn dugal sa xel ay affaire ay mbëggeel ay affaire de mariage affaire yooyu et de surcroît avec moi qu'est-ce que je peux t'apporter bah, beaucoup de choses. Mais moi, je viens à peine de sortir de prison et j'ai d'autres objectifs. Et puis, je suis dit, nga sama jarbaat nga sama lépp nga li ma war ci yow moom c'est que ni ma defar la ma mën la conseiller ma mën la jàppale ci lépp looy def mais quant à avoir une relation amoureuse avec toi je pense que ce sera la dernière des choses que je vais faire génne loolu sa xel nga avancé xale bu tuuti nga juddoogoo. Ali gis nga man suma xasse ba mat dag rek kay tax may bàyyi bu fekkee nag faa daf la jox nga lek wala mu jox la nga nan dina leer. Ah, c'est pas possible. Kini, comment tu peux tomber amoureuse de moi jusqu'à me parler sur ce ton Xola, oui ma xool ma yow si sama xarit nga retanal et eh, oui ma waaye sori moi yo tamit nak xola kay ma wax la wuy ma oui ma xola xola defani ma wax la wuy ma c'est vrai que ni sama jabaru yoonu yàlla nga mais dindi loolu sa après tu vas rencontrer un homme bien man dina la xola man après vous avez construit un avenir ensemble mais man wa wax deug yalla génneel sa xel ci loolu bu ko sax bu ko sax xalat de nga vais sama xel Ali te dina ko tu deugal te mais qui elle, elle, elle, elle s'entend parler. <laughs> J'ai peut-être un problème. Wow.